ahousubillahi min asheytaan irajim nahmadullahu ala wasami sëhër wa min fadlihi xëhër nahmadullahu ala ismihi sëhër wa min fadlihi xëhër uh, asalaamaaleykum wa rahmatullah kon mbokk yi kii mooy sëriñ Baba Ndiir ñu ko wax Baba Kunta Ndiir di sët ci maam Mandiir moom moo jamonoonte ak Serigne Touba fekk eh, booba moo nekk ab seex ci xaadir gi seexal bakaay booba fekk na mu def ko seex waaye nag Serigne Touba ñëw woote sëñ Aliou Diouf euh, sëñ Bay Cargaan jóge fi dem fekk sëñ Touba wuy jigo ci Lambaay sëñ Aliou Diouf jóge fi dem ci sëñ Touba ci Lambaay ba nu yeggee ba am sëñ mbay sargaan ñëw di siyaare si sëñ tubaa ko laajal boppam na ko anakani wax Babacar ñu ne ko Babacar Ndiaye mu ne déedéet meneen Babacar ñu ne ko am na kun fay wax Baba Kunta Ndiir mu ne kooku laa wax sëñ tubaa ne leen bu ngeen demee nii leen ko jox ko bataaxal na ma wuy si bi mu ñëwee jox bataaxal bi ndaw li moom sëñ bay ne ko sëñ tubaa mook ko jox bi mu ko waxee loolu sëñ baabu ubbi gis leetar bi te fekk booba am na ñetti giléem yu mu jëlan gii giléem sangal la ko sëf gii giléem mu sëf ko baraay gii giléem ñu sëf ko mu sëf ko suukar ne leen dem leen jiitu ji ma gàmmu ji maa ngi war moom mu war a war ngélambu ànd ak taalibe yi dem gàmmu ji njaasaan waaye giléem yooyu di suñ borom dogalee ñu jiitu ci dem leetarab sëñ Tuubaa ñëw jokkaan dëkk bu ñuy wax jokkaantin la ndaw la dëppalu ndaw ndaw ya ak sëfub giléem ya daa di war fa sam dem jaareem fekk sëñ Tuubaa bin dikkee yëglu ca kër ga sëñ Tuubaa ne ne leen Babacar Ndiir na jàll si sëñ baaba ñëw fekk euh, maam ma Ndiir maamam mu ne ko daa war a na àtte jamono te jamono ñi ko wara a àtte seen cër maa ko yor moo noon fa moo ma di nga tase ak sama sët bu ñuy wax Babacar Baba Kunta Ndiir nag ma ko joxal lii daal di jël yóbbal booba jox ko sëñ Baba Kunta Ndiir mii ñuy màggalal tey fii ci ñaar fukki fan yi baraxlu wi ba mu ko joxee sëñ baaba sëñ Baba fekk loolu la doon wër Njaasaan sëñ Baba daal di ko ca moom jël ngëlëmu lam yoroon waran jox ko ko addiya fas win fi mujj joxe man maa ko war fekk sëñ Muntaxa njaareem jox ko ko sëñ si ndiir mii moom ko yónni dan doon def xalifa bu fi ne at mu jot nga lijjantiwu fas jox ko ko fas wan mujj wan fa mujj yóbbu ku ñuy wax Ndiir mu ñu koy moo ko jox sëñ si ndiir sëñ si jox ma fas yi ma war ko yóbbu ko njaareem kera maa nga fanaan dëkk bu ñuy wax guy njóogu bi ma xëyee laa doxal dem ndax damaa dem ba foofu fas yi bañ ndekete kër gi mu bañ bañ na du ko romb taalibe bi sëñ maa bi yi fa ba mu tëb sëñ sëñ bi kër sëñ maa bii la noonu ma fanaani fa ma xam ne ginnaaw fas yi bañ na ma wàcc uh, ak moom foofa fanaan fajar ma jóg njël gu jëkk jóg dem yut ko sëñ Muntaxa lan mujj jox fa soow kii nag doon na xalifa sëñ baaba sëñ baaba mi uh, taawam bi ni wax sëñ Sidi Ndiir moo jàngal moo ma yar moom doon na xalifa siñ baaba fanweeri at ak ñaar uh, moom itam bu ñu génnee fii dinañ dem ci xabroom Euh, sëñ bi tam nii la demee ci yoonu mu murit moom sëñ baaba ndigal nii la demee ci yoonu murit boo gisee nag ñëpp ndiir lan sant waaye sun borom moom la dogal taalibe yi nekk moom taalibe njëbal yi moom la ko yàlla jox ci ci ci famille bi moom it mooy ki taxan ñuy wax ndax tàgge bu ne am na jàppal diw ko fi ne sant ndiir rek ku baax ka waaye nag baax bu gën ñëwee da koy teg fële jàpp ca gën li gën mooy ki taseeg suñ Tuubaa mu nungu sa mu nungu sa baax nungu sab cër wëlbati la na ko maa la maa yor sab cër kaay jël ko mu ñëw mu ne ko mi ngi nii mooy sëñ Baaba Kunta Ndiir mii moom it moo diggalan ne bu fi jógee nan ko defal ni mel nii waaw mm, kon loolu mooy tey ki dajale nit ñi fii di way jur ci xalifa bi fi nekk tey di suñ Muudu Ndiir Làmbaay mooy xalifaam mooy ñaareelu xalifaam ginnaaw bi sëñ Sidi Baba jógee sëñ Modou ndiir mooy euh, xalifa bi tey mi ngi làmbaay waaw kay kon dañuy mel ni mën na noo dugg fii tam nga seen muy barab bi euh, bi ko sëñ bi defar sëñ Baba am na ku ñuy wax sëñ Modou Farboot yàlla dogal na bi muy bi muy ab betaaxal la ko sëñ Touba joxoon na ko foofu faatu nan la fa def. muy dox ba ñëw fii bi mu fi fanaanee yàlla dogal mu wàccab liggéey ñu denc ko fi xabroom dinañ fa àgg léegi kooku dong fi sant waaye ñu ci def ñëpp ñi sant ndiir ñoo fi ne sant ndiir képp lan fi def. loolu tam sax am na sabab xañ na mën nañ koo leeral waaye xañ na li tax ñi sant ndiir dong di fi ne ndax sëriñ bii di di xalifaam tey bu nu génnee yegg foofu ma leeral la ndax nu dem ba fa barab ba ma wax la li ma waxan ci loolu muy suñ sii di baaba ndax moo ma yar moo ma jàngal waaw nee na moom def na quartier ci soldaar yi suñ Tuubaa yóbbuwoon joxe woon sëñ Sidi ci la bokk wax ne ni euh, quartier ga mustaliit te du ci suñ ginnaaw siñ baaba lay fanaan si diirab lim ne quartier ba nim ñibbisi moom loolu moo ma ko wax dërët waaw kon nu nu yegg ci barab yeesu bu waaw kay eh, sëñ ñu ngi kii mooy sëñ Sidi Ndiir Sidi Ibrahim sëñ Ndiir eh, moom sëñ Sidi mi mooy xalifa bi jëkk ci sëñ Baa mooy xalifaam mu jëkk mooy mooy mooy premier xalifa sëñ Baaba Ndiir moom itam nekk na ci xilaafa gi fanweeri at ak ñaar waaw moom eh, moo ma waxal boppam ne ba mu demee quartier de moo ma waxal boppam ndax moo ma yar moo ma jàngal moo ma ne ba mu demee ba mu demee quartier quartier gi mës a mës a liit benn bis te du ci ginnaaw suñ baaba lay fanaan moom moo ma waxal loolu waaw ma ma ne ko waaw moom moo la doon jël si wala yaa doon ñëw mu ne ma mu ne ma som nga waaw loolu la ma daal di waxal loolu la ma si di muy wax moom itam barab bii ngay seen nii kenn rek ñaare fi sant kunt ak ku fi doon dox ba ñëw fi ñu joxoon ko bataaxal na ko su la fa yàlla fu la yàlla moom nan sëñ Tuubaa jox ko ko muy sëñ Muudu Far boobu bi mu ñëwee wàcce fi liggéey ñi suul ñu denc ko xabru ma nga fee nan fa àgg waaye sëriñ bi moo ma waxalan moo ma ñëw moom mii won na ma jàngukaay bi ndax sëñ Buso Maxtaar mi jur siñ Baaba Ndiir way juróom sëñ Buso Maxtaar daa toog ba mu yàgg ba waaw waaw sëñ Buso Maxtaar sëñ baaba euh, da da dégg nga dañ doon toog ba mu yàgg ñu ñëw fekk mu kawar gi ñu wat comme nel dellusiwaat toogaat ba mu yàgg ñu ñëw fekk njaañ ci daanu ci mbagg yi moom sëñ Bousso Mokhtar mooy woy juru sëñ baaba ndiir mi fekk sëñ Touba mi doon xalifa bi tax ñuy màggal tey sëñ Bousso Mokhtar moomu nag fi mu doon jàngalee fi Dakar gi sëriñ bi ànd nañ ba ba guddi fii luy tàkk mu ne ma Ibrahima gis nga lee ma ne ko waaw moom sëñ Sidi mii ma tiim mu ne ma njuuma la mu na ma dug njuuma fii mooy jàngu seen taalukaay jàngu junne yi waaye kaay ñu ñëw mu ne ma fee seen jullikaay li nga gis fii muy xuuy du du du du du du du du ay li nga seen muy fii mu ne ma dug njuuma seen jàngukaay bi la ne ma tam fii mooy seen jàkka ji ne ma nag boo gisee ñu ñu fi denc ku sant ndiir ñu sant ndiir kuy wàcc fii laay jëkk a gis ñu jullee la fi seen jàkka ji loolu moo taxal ñu leen di indi ñu ñu ber leen fii seen armel yi daal di génnewaat yeneen armel yi yóbbu fee ñu di ko wax ngoolaan diggante bii nag moog àddingaal lan nen ku fi suul kon fi denc see ram ram na sa war a àddingaal mooy muy garab yële ngay seen euh, ñu koy wax ñu koy wax Medina Faye Medina Faye te sin Babou Faye dëkkan fa waaw foofu la foofu la nekk noonu ak seen Jibril Faye waaw nahmadullaha ala ismihi sero min fadlihi xayr kon noo sant yàlla baax a baax euh, tey ñëw nañ fiyaat ci Mbuso Ndiir lii nag mooy barab <clears throat> barab bi ñuy wax maam Mandiir Mandiir Faabooy mooy barab bi ñett ñoo fi nekk sëñ maam Mandiir mi sañ ci dëkk bi ak ku ñuy wax mm, mm, euh, sëñ Bousso Moxtaar di way juru sëñ Baaba Ndiir mi mi tax tey ñu daje ci bis bi fii la nekk ci biir papillon bi ak si maam Mandir ak ku ñuy wax maam Samba Daaro ñett ñooñu ñoo fi nekk ci biir papillon bi. maam Mandir nag liy sabab ak fii dafa jógee euh, gànnaar mu jógee gànnaar jaar waalo jaar waalo war a ñëw si fii fekk boobu mi ngi wër si barab bii bi mu dikkee ba waalo waalo waalo yi ko ne naar bii day am na li jaaba ci ñaan am na xalima xam naa ko yàlla wuyu mbiram la nu ñuy def nag ba dëkkoog moom bu ko ko mënan loolu mooy gën ñu di ko ñu ne kon bu ko genn gaal jàll jàllale gaal loo ci yéen doon def du jaar dex gi di jàll ñu ne bu ko kenn jàllale waaye naar bi toog ba mu yàgg rek aal yi demam jóg mu dem wut ñax mi ni waxam ndiiraan di ko ràbbu ràbbu ko ba am ci lu mel ni fele-fele jël téere yam yoroon teg ca dàq giléem yi ñu jiitu xuus ndox mi mu jàpp ci téere ñu jàpp ci buum gi xëcc ndiiraan moomu bi ma doon yor nag ba ngay dégg ñu naan xalaa ma ndiir bàjjo doo fi jaar ma ndiir moomu ndiiraan moomu moo ko indi waaye amul sant bi muy ñëw maam ma ndiir mi koy wooye almas uure maxa sarif la tuddan maxa sërif la tudd bi mu jaaree waalo nag ndiiraan moom yoroon moo tax ñu naan ko ma ndiir ba turu ndiir santu ndiir ci loolu la jaare waaw ndax naari ñoom bu bu nangam bu nangam bi sun borom dogalee nag mu ëgsi fii yàlla dogal mu ñëw fi waxtoow cooroon asamaan si tàmbalee xiin di dënnu mu defarab càkkar jotu koo xam jotu koo xadd fekk am na ay quelques taalibe yu mu àndal yu yu ko joxe ci réew mi bi mu ñëwee nag asamaan si jikki-jikki rek xiin taw ndox mu bari mu day mu ne ci guy gu ñuy wax fii guy pitax ndax bi muy dem téere bi mu takkalan pitax mi pour xam fan lay dal ci guy googu la dal ñu naan ko guy pitax foofu doonoon pénc mi booba. bi yàlla dogalee nag mu ñëw mag ñi jóge fii dewulum di ko seeti ne xam naa téereem ya dina tooy ak bagaasam ya bin dikkee fekkuñu néegum ñax ba mu sàkk yëkkatin jotu ko xadd ñu fekk benn ndox laa lu suuf dara tooyu fa buy taw mu rëdd aw rëdd wërale donga ya noonu la fi nawetoo ba nawet bi wàcc ba mu am ñax xadd defar waaye bu daa taw day rëdd aw rëdd rëdd kooku moom mooy mëndiir soo déggee ca xareeb euh, ca xareeb mm, birima ak ci yaasin bare xareeb birima ak ci yaasin ñu bokk ab sëriñ mu ne leen su ngeen demee ku jiitu ci xabroo mandiir ba ku jiitu ci xabroo mandiir ba soo ko bootee ki jàkkaarloog yow bu la fetalee du dem ca yaasin jóge ceeb jiitu birima mi jóge ca yaasin jóge ceeb jiitu birima jóge làmbaay jiitu birima mi jóge woon ceeb léegi sun borom dogal ñooñu bun ko jubalee tiire du tàkk te boobu diggante xasar na lan doon xasar na ak fii mi ngi nii ci gànnaarub dëkk bi xareb na bi mi ngi ci gànnaaru gànnaaru dëkk bi diggante na ak fii nag boo ko nattee matut ñetti kilomètre mbaa ci la yem waaye taxawut teewut ki wanan ginnaaw xabru bi ñu jàkkaarloog moom mënuñu tiire ba bal ëtt bi ci loolu la dàqee birima ba ma dellu kon fii mooy Mbousso Ndir ki sanc dëkk bi jaamu yàlla ak liggéey la ko santeen ak jàng ak dundal alxuraan ba sun borom defal muy ami sët di ami sët ba sët bii tey ñuy màggalal ñëw fi di sëñ Baba Ndir moo noonu suñ euh, suñ baaba nag bi mu toogee suñ tubaa jamonoog suñ tubaa suñ tubaa woolu ko bi ko suñ tubaa wooloo mu ñëw mu ne ko samaam daa war na atte jamono te su te kuy atte jamono sub cër maa ko yor daa di woolu ko mu ñëw mu jox ko cër ba kooku sët la ci ba jëmba ndiir mii muy suñ baaba ndiir mee nu génn barab ba léegi kon noonu moom la doon histoire busu loolu moo waral màggal gi sëñ bi ndiir sëñ Bousso Maxtaar moom wax naa la ni mu doon def bu daa jàngale mooy way juru sëñ baaba da nga daa jikki-jikki ñëw fekk mu dootoo ko fekk kawar nga dem fële ñëw fekkaan jañ li ci ci mbagg yi kooku mooy sëñ Bousso Maxtaar moom lañ tuddee bàyyi sëriñ ndiir mi topp ci sëñ siidi di way juru ma ndiir bokk ak sëñ Moodu Moodu Lambaay ndey ak baay waaw mooy xalifa ba tey sëñ mu ndiir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 bi mu ñëwee nga ne ko daf ko ko lam ko daaxal mu tili kóllëreem ak diggante sëriñ tubaa ja waaye wénnee ne kenn xam ne cër la ci jëri sërëb sëriñ Touba moo tax moom di ñëw fi looloo waral sëñ mu Moustapha ñëw fii 46 bi mu demee ba Daara Mbaw xelam ŋàpp ci ne jumaaye tubaa das koy liggéey mu ne bëgg na fi tool wax ko sëñ sëñ Abdou Mbaw borom Daaru Mbaw mu ne ko ah loolu de man Mbàkke xam naa lott naa ci man ko waaye ki nga ganee woon soo ko sasee yaakaar naa na ko bëggee di nga ko ko amee mu ne ko sëñ baa mu ne ko waaw mu ne ko kon wool ma ko mu ñëw bi mu ñëwee woo ko na ko sëñ Abdou Mbow mii kat dama ko bëggaloon tool bu ñuy bayal sëriñ Touba ndax tool bi mooy li jëm ci jumaa yi xam nga jumaa yi Touba léegi rek la ñuy laaj àddee xaalis di ko ci te dégg naa sax demu ci ndax ne lim daan bay ndax ku baax ki sëriñ saa yal na ko yàlla dooli leer ak xiiwal lim daan bay lépp dégg naa ci defar ak jumaa ji la ko daan def moom ba mu néewut ba mu néewut ba mu nekkee doomu Sëriñ Tuubaa rek ba xammee xippee di bay rek lépp lu mas a bay rek maanaam ci jumaay Tuubaa la jëm xam nga jumaa ji dañ dërëm bu lewut du ci dugg looloo waran bay di ci def moom la yoon looloo taxoon sëñ Mourou Moustapha sose ko ko maanaam mboolem fu mu xam seex fu mu xam ab seex defal na wax na la sàkku na fa tool boo xam ni dañ koy bay du ko def ci jumaay Tuubaa ji ci la loolu nag ci la wax sëñ Abdou Mbow loolu sëñ Abdou Mbow ni ko sëñ Baaba Ndiir mi nga gane woon mu gis naa ne boo ko santee dina ko man waaye man lott naa ci Mbàkke def ko bi mu ko wooyee ba mu ñëw mun ne ko tool laa bëgg mu ne ko tool di ko am daan na ko ni nga ko bëggee nga koy am loolu waroon na mboolem ko di seex fii tool bi xaloon mat na un kilomètre mboolem seex yi fi daan ne àllarba ju jot ñu ñëw bay ko di ko bay ba sëñ mu Moussa génn àdduna sëñ Fallou toog moom nag ci digganteem ak sëñ mu Moussa ci la génn daal di tànn sëñ siiru Mbacké ndax xam nga cër boobu sëriñ Tuubaa moo ko boole woon moo tax mu dem jébbalu ji ci. sëñ Basiiru sëñ Basiiru daana seet si ku baax kii waaye ci jamono boobu daana da ko daan gane si ndax mas nay ñëw sax fekkoo muy dem ngan Mbambey moo na mu ñëw laaj ko sama yaay sama waajuru jigéen mu na ko ah ku baax ke day dem na Mbambey ca ay taalibeem da leen defal ak ngan tey jii la ngan nga sëñ Basiiru la wax sama yaay dana ko sëñ baaba de fu nekk fa koy fekk fu mu nekk jombul ma fekk kon naa ko fekk ji Mbambey fa la ko fekk Mbambey Mbambey fa mu taxaw ak moom Mbambey garab ga mag ña fekke woon mu taxaw ci garab gi jàpp ko nii moog Sëñ Basiru garab gi bi muy dee foofoo ci mujj a dee garab gi lépp dee na ba mu des foofu foofoo mujj a dee ci garab gi loolu ci la Sëñ Basiru nag fii moom ab dëkkuwaayam ngërëm Sëñ Muudu Musaa jooju nag ci la bi mu génnee àdduna ci la nag jébbalu ci sëñ Basiiru di ko siyaare sëñ Basiiru di ko di ko gane looloo waral ñu dem daaru Minam waaye ñu daaru mu daaru xuddoos lan ba bi sëñ mag bi sëñ mun Musaa wàcce lan dem daaru Minam kon loolu mooy cër bi waaye kii daal mag ñu baax ñépp ñu fi fekk ñëpp kenn ku ne xam ne ne am na cër te nanguloo nan ko béréb bi nag waxoon na ne waa dëkk bi dëkk bii su ngeen bu kër yëpp deman bàyyi fi suuf si suuf si moom yàlla def na ci barke ba yowmal xiyaam du dañ daane ne fii ku fi ñëw sàkku fi dara te amoo ko seetaatal say mbir saw doxin waaye lu fi waaye sàkku danga ko am ndax yàlla nangu na ko ba pare loolu moom laa leen baaxal ci bërëb ndax fooy dem ci béréb war ngaa xam luy sababu bërëb ba ak la tax ñu def ko mooy lii mooy sanc dëkk bi dëkk bi nag dëkk la boo xam ne nii jaamu yàlla rek la ko sanc jàng alxuraan bay dundee moom la def ba génn àdduna njabootam gi fi ne it loolu la fi ne ndax dabootam gi yëpp ñu ngi woon Dakar doon liggéey port am fa ay lii bàyyeb kii toog borom kër gi ñu jóge bi seen baay bii ne neen sama benn doom ak ku ma déggal na bàyyi ndakaaru ñëw fekk si ma bàyyeb kii ma soo magi bàyyi moom la jox bàyyi ci moo yor moo yor bi noonu la ñoom ñëpp bàyyee ñëw fekk si ko ci li mu bëgg bokk ak moom samp daara yi fii léegi la rek waaye li fi daan kër gu ne daara la woon kër gu ne la nga doon yor ëpp na fanweeri nit di jàngale ngir yàlla def ko jaamu yàlla di bay dunde loolu mooy sababu dëkk bii dëkk bii mosuñu fee def daraay caaxaan mosuñu fee wax daraay caaxaan alquran ak bay dunde rek lan xam te ci loolu ci lan nekk ci la ko borom bàyyi ne képp ku bëgg a jariñu tey ak ëllëg na nga sax ci jàng alquran ak bay dunde loolu moo waral béréb bi yàlla macha allah wax dëgg yàlla yàlla def na fi xiiwal ndax wax naa leen ko léegi suñ mut jóob far bopp moom la suñ tubaab waxoon na ko doxal doxal moom da ko waxoon rek doxal di dem wëral waaye foo wëree fu dul tuubaa du njaareem boo génnee àdduna la yóbbu boo demee yaay doon seen seede yow mal xiyaam kon loolu rek loolu képp daa doy daa doy doy na sëpp kon ñu ngi leen di jaajëfal di sant yàlla rek di wax wasalaamaaleykum wa rahmatulah